expliquer alors Fatou Abdou yaa am solo laata euh, ñu avant ñu doon décrocher euh, par rapport ak euh, li Kadar doon wax. waaw dama dem woon bañal manifestation parce que tout simplement wala rassemblement dañu nekk ci situation bu tendue loolu je pense que amul excuse. parce que amuñu li nga xam ne ñaari raison moom mooy tax nga tere une manifestation muy soit ñu am ñu takk der yu mat sëkk wala mu nekk trouble à l'ordre public te fi ñu koy defee yaakaaruma ne loolu mën na fa am. banlieue nga xam ne moom mooy Parcelles Assainies beneen bi nag mooy Lamine Gueye junj na ko sànq mais mënuma comprendre yow sagam da ngay déposer une manifestation en bonne et due forme mu respecter le délai ñu la koy bañal. Mhm. asantumaak nag nga ne da amal une manifestation un contre dialogue mu nga xam ne c'est un purement politique. Mhm. boo xam ne da ngay bëgg a mhm. dialogue bi président de la république teg. ba pare te jëloo say disposition dañu prêté boo xam ne mairie bi moom moo ko moom ci mairie bi laa jaar donc damay amal sama rassemblement boo xam ne dafay dajale plus de deux cent et quelques partis politiques yoo xam ne ñu ngi bokk ci F plus de cent ne ñu bokk ci F24 ay organisation de la société civile yoo xam ne ñu ngi ci biir nga dajale leen ci bërëb te yow jaaruloo fa nga war a jaar may occasion aujourd'hui nu ñu la ko mën a teree ba pare nga taxaw nag di wax ne dinañu wut beneen jumtuwaay dinañu wut beneen muntuwaay matuwaay am na ci yoo xam ne boobu boo ci nekkee mu opposition muy pouvoir nga ne lii c'est un combat boo xamante ne da nga koy def il faut que nga fàggandiku jël lépp loo xam ne matuwaay ak jumtuwaay la boo xam ne nag kenn waxul matuwaay bu violent jumtuwaay bu violent mais nga respecter les règles déposer li nga xam ne moom mooy demande bi fa nga ko war a déposer mooy préfet muy dép jox ko préfecture ñu xam ban date nga koy amal bu boobaa bu ñu nee kenn nangul loo ko les gens peuvent dire que nekkuñu ci yoon parce que régime déclaratif la te am nga sañ-sañ saa boo bëggee daje nga daje d'autant plus que na yow woote woo une manifestation tu appelles à rassemblement euh, pour daje ak askan wi pour wax leen li nga xam ne mën nañ cee sumb pour dialogue ak moom hmm. donc loolu foofu ñoom dañu fa def li nga xamante ne mooy trop de légèreté hmm. ci li nga xam ne mooy seen doxalin beneen bi nag mënuma comprendre ñoom ñu jóge ci bërëb boobu dem un lieu privé boo xam ne c'est chez Malick Gakou après ñu yéeg foofu fouillé xool bagage yi fi ñu yegg tey Sénégal Mouhamed sa dire que ku ci tiitul ku nekk man dina ma jaaxal. parce que foo xamante ne à mën nañu la woolu mën nga nekk sa bërëbu liggéeyukaay ñu ñëw jël si la. parce que def nga benn post Facebook mën nga toog ay ndaw manifester ba dugg ci sa kër ñu ñëw woolu la. parce que tout simplement ay nit dugg nañu sa kër te amaana yow sax xamoo leen mais parce que yaay le père famille après ñu woolu la pour déglu la loolu li nga wax sànq bi ñuy wax ci sëñ Saliou intimidation yoo xam ne dafay topp toute une famille topp xale yi nga xam ne ñu ngi fa koo xam ne leader politique la ñu ne ci këram dañuy dajaloo xam nga ne foofu kër Malick Gakou domaine a dajale mënut a dajale sax les cent bu ñu leen bàyyi woon tamit nañu wax ne ñoom ñun ñëpp amaana duñ a yegg c'est parce que loolu mënu leen a lépp nombre bi nga xam ne tey moom ñoo bokk tey ci plateforme bi te ñu ne ñoom dañuy dialogue ak moom en ce moment y aura pas de dialogue avec le mooy dem ci kër Malick Gakou ak ñoom askan wi mënuñu leen fa fekk fi dool foofu c'est tout de réunion est ne leen du fi am et aussi pas dimanche toll tey ci Sénégal mhm. dafay delloo ginnaaw démocratie mais Fatou Abdou foofu aussi dafa jot ñu def benn rappel pour nos forces de l'ordre et de sécurité que domaine privé kenn amul ci droit dugg fa nu mu la neexee parce que tey jii si l'opposition décide dem kër Malick Gakou quel que soit le nombre tant que xëj nañ ci kër gi yoonu yoonu état newu ci parce que quand même domaine privé la kii moom moom moom këram ku mu neex na ko fi recevoir quelque que soit nombre bi moom la loolu intéressé la fa xew moom mooy responsable tant que jàmm a ngi fay xew ñuy dugg di génn amoo droit dugg ci biir kër gi tas leen mhm. parce que il faut que tamit loolu ñu wax ko te li valable ci Malick Gakou moom moo valable aussi tey que Ousmane Sonko donc il faut que quand même ñu delloosiwaat suñu bopp ñu xam domaine fi ñu toll daal kadeer hmm. moom mooy maanaam euh, wóor wala wax sax laa la wax hmm. wala am sa liberté sax ça pose problème gis nga dëkk nag bu tollee. en tout cas bu dee F24 moom. nii nii la jugtee par rapport ak euh, ay défaillance yu muy wane. non euh, lii moom lii moom euh, lii moom il faut que ils ont prêté le flanc. voilà il faut que ñu teel cee jóg. ils ont prêté ils ont ci bu ñu bëggee xëy na wóyal seen ay activités ak seen combat politique. c'est ça teel a jël seen ay décisions ça peut se se comprendre. Hmm. parce que aujourd'hui également bon il y a plusieurs arrestations le coordonnateur Aliou Sané est en garde à vue. bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñu ko doon doxal mais y' a une cellule de communication. y' a une cellule d' organisation. y' a y' a y' bien sûr. non non je ne les dédouane pas alors je dis tout simplement que ne. Ah, ah. des arrestations qui peut être am loo xam ne dina ko wàññi ci organisation. oui mm, mm, njeexital mm. mais cela n' pas wala indiwul excuse que ne da amal une manifestation boo xam ne bi nga ko programmé le 30 nga waxoon. la le président ñu ñu toxal le 31 yow tamit nga ne la 31. Mhm. nga njëkk a wax benn endroit Fun City ñu bañal la ko booy dem Parcelles Assainies war nga mën a fàggandiku jël sa ay matuwaay ba nga xamante ne doo arrivé ci moment boo xamante ne à 15 heures 16 mhm. nga door a jot li nga xam ne moom mooy notification pour ñu wax la ne même le préfet n'était pas au courant et les explications de Gueye l'original yi mu wax fii tàllal ko que dem nañu ci municipalité bi fay nañu fukki junni jox nañu quittance je ne pense pas que loolu am na benn diis boo xamante ne mën na faire face à aujourd'hui benn endroit boo xam ne même si vous dites que c'est privé mm. bërëb la boo xamante ne da ngeen a woote pour rencontrer avec le peuple wala waxuñu pense que maintenant nit mënul jógee fële ñëw ak li nga xam ne moom la mën a jur mu indi leen aujourd'hui ñu ñu tere leen ko après ils vont crier partout que ne euh, euh, tout le temps dañu koy def oui tout le temps dañu koy def parce que tout le temps gis dañu koy def d'une manière très légale euh, joxe li nga xam ne moom mooy autorisation demande bi te dañ leen koy bañal assentement nag yow boo mayee porox ndollu fu ñu la mën a jaar ba tere la loo xam ne dañ nga ko waroon def. c'est ça moi je pense que ah. je pense que contexte bi xam nga. contexte bi ni dëkk bi tëddee tey. Hmm. ak F24 li mu ëmb. quand ak combat bi mu gàddu. oui c'est-à-dire il faut ñun mën a nekk à la hauteur. Ah. de li ñu bëgg a li ñu bëgg a def. Hmm. parce que aussi mënoo comprendre ñoom ndaje mu ñu mën a woote ah dañu war a jël seen disposition ba kenn mënu leen jaar fenn parce que ñoom xam nañ ne sax bu ñu defee ndaje gars yi yenn saa yi du ñu am sax fu ñu leen jaar te dañuy wut pexe. Hmm. sàkkantumaak nag boo boo boo boo leen joxee boo leen joxee tey jii c'est vrai que. comme dit Gueye l'original foofu aux Parcelles Assainies peut-être qu'il a organisé luy en tant que euh, représentant de Gëm sa bopp euh, mën na fa organiser dans un contexte boo xam ne c'est pas le contexte que nous vivons actuellement mais bu fekkee ni nag contexte bii la ñuy vivre tey Sénégal te ñëpp xam ko ñëpp xam li ñu jógee ñëpp xam ci leen jëm je pense que F24 lu toll ni F24 quand même booy def quelque que soit c'est-à-dire F24 waroo def lu ndaw. Mhm. parce que ñi nga ëmb tax. parce que ki nga jàkkaar lool moo tax. Mhm. parce que ñi nga jàkkaar lool ñoo tax. Mhm. donc je pense que il faut ñu jëlaat la mesure. de leur responsabilité. d'accord parce que sinon aussi euh, voilà dañuy dinañ amaat yeneen. yeneen yu mel nii ah. parce que président ñu ñu ñu ñu demaat ci dialogue Macky Sall bi comme que ñaari dialogue la dañuy dañuy valsé Fatou Abdou wax na sànq ne euh, Macky Sall donte ay kaddu yu troisième mandat ak troisième candidature euh, jub na fa euh, jàpp nañu ne war na mën a samp ndëndam alors. man waaw waxoo loolu. non jàppoo ne président Macky Sall ak ak troisième candidature bi. daf ko bëgg a légitimer daf ko waaw daf ko bëgg a légitimer léegi. Mm. la fa jub yëpp ci ay kaddu président président Lamine Gueye. même ba ci Macky Sall ci boppam moom abordé na cette question di wax ne nekkul tabu ku ku ci bëgg a wax wax ci ak situation bi ni mu ni mu tëddee nii ci dialogue boobu le président Macky Sall serein calme jàpp nga ni fi ñu jëm véritablement ak préoccupation leader ya fa teew yëpp ku ci nekk di jooy ci troisième candidature ne ko yaa bul bokk moo xam directement wala indirectement am nga yàqin ci ne président de la République war na mën a poser wu candidature ci ci <laughs> ci élection bi ñu jëm en 2024 xam nga man compte tenu de toute cette situation là. xam nga man dama mos a gëm benn affaire. gis nga coow lii li ñuy wax ni yëpp ñu koy demander. ñii di lépp day dellu si waat ci loxo président Macky Sall. oui. parce que moom. maanaam moo yor tëggal guyam. c'est-à-dire li ñu koy laaj da koy neex rek il accède à ça. c'est ça aussi la vérité. parce que tey Sénégal aussi dafa tëggoo noo xam ne. mbiru candidature dafa am structure wala institution bu koy gérer. mooy conseil constitutionnel. waaw waaw. Kader bu bëggee nekk candidat day defar ay këyitam yóbbu fa. mais Kader nee na ñoom dañoo war génn léegi wax quoi. ah non loolu laa loolu <laughs> ah? mii bu bëggee nekk candidat daa yor ay calendrier boppam bu bëggee nekk candidat moom ak seen waa koñ day defar ay dossier am yóbbu. <laughs> sama candidat te xalaat. léegi nag conseil constitutionnel donc moom la. moo yoon jox mu saytu. Mm. candidature yi pour mën a génn ne ñii recalé nañ leen ndax lii. Mhm. ñii ñoo valable. Mhm. waa léegi nag problème bi mooy c' est vrai que président Macky Sall Fatou Abdoulaye rappelé wax na fi ay juróomi rakk ak juróom-ñaari ràkk lii moo tax ma def affaire bi lii moo mais c' est vrai que aussi c' est lui qui est revenu pour redire que su dee wàllu yoon droit. le problème loolu y' a plus de problème amatul amatul discussion. Mhm. léegi ci man la des. man li ma gëm mooy du dialogue bii le président Macky Sall di waxee ni day bokk du bokk. ah oui. ah non du ko wax. kon dialogue bi amatul sens du ko mhm. wax. Mhm. du ko wax il ne le dira pas moom sax soo xoolee il est il est à l'aise hein. oui du troisième mandat fii y a pas de sujet tabou. parce que il sait que le dernier mot lui revient. Mhm. comme l'a dit d'ailleurs ay en toute légitimité ah ne ko lu fi mën a waxtaan tamit sa kaw table lay mujjee yow yaay décidé. moo tax tu seras seul responsable aussi je pense que loolu c'est très très important. mais mais mais mais président xam nga pour loolu pour sincérité dialogue bi question boobu bu teggew ci table bi ñuy xalaat naan moo ci tontu ak du tontu moom mooy. mais ki dialogue bi amatul sens. non mais dialogue bi ah, ah, no su fekkee question yi. est-ce qu'il y prendre une décision à la place du président Macky Sall. xam nga fi ñu toll on est on est ah, non attends on est en situation exceptionnelle hmm. conseil constitutionnel bu fekkoon situation bi amul. du ma pour que ñu ñëw bokk ci dialogue bi mais situation. exceptionnelle bi conseil constitutionnel bien sûr. ñëw bokk bien sûr. parce que dafa war a mën a nekk. non mais mais dialogue bi kan la engagé. état bi la engagé. donc ñoom ñëpp ñu ngi ci biir. su fekkee dañu ba non bu ñu ko réyal dialogue la dafa <laughs> woo ñëpp ñu ñëw. te question bi nga xam ne moom non waa conseil bi nga xam ne moom la a tontu. Hmm. su fekkee si ne Macky Sall il est tellement à l'aise ba ñu mën koo wax. Hmm. mais na woo conseil constitutionnel kaa leen tontu. yéen moom question bi mu jeex tàkk. su fekkee moom mënu ko waxal gémmiñam affaire bi balaa tontu man xam na man sax li ma d'accord ak yaak Lamine yëpp mooy balaa ngaa tontu man balaa nga maa tontu dara xanaa day fekk nga xam ndax bëgg naa wala bañ naa oh, mais léegi man man da ngay xëy da xëy rek ne ma dinaa la may téléphone wala duma la may téléphone alors que moi je ne t'ai rien demandé il faut que le concerné lui-même ñu xam ba xam moom lan la bëgg moom mooy euh, ndayu mbili gi moom mooy wax ne damaa bëgg wala du ma bëgg et maintenant conseil constitutionnel warul xaar ak xam bëgg président wala bëggul na wax li yoon wax mooy même bu yi bëggee. mais bu jotee mais mais le conseil n'est pas. on dit même bokkuñu il faut euh, qu'on se comprenne. oui bokkuñu sax le conseil existe. ay échéance lañ jëm. oui ci échéance yooyu dafa am moment boo xam ne conseil daf ci war a jouer benn rôle mais moment mm-hmm. boobu yeggaguñ fa. Mm-hmm. le conseil constitutionnel aujourd'hui ne peut pas empêcher mm-hmm. à un Sénégalais de déposer ou de ne pas déposer. non ce que le conseil peut faire mooy. bu ñu déposé ba pare mu saytu le conseil day saytu candidature yi xool ndax dëppoo na ak yoon wala dëppoo wala ak yoon. léegi nag nit ki war a déposé mais la bëgg wax mooy. mooy loolu mooy loolu on est d'accord pour pour Macky Sall déposé. candidature am xam nañ bëgg-bëggam fi mu toll. ku ko wax ak ku ko bañ Macky fi mu toll nii pare na pour dem mais question bi su fekkee si moom ci nii wii nii noonu la taxaw mais conseil constitutionnel nekk fi pour déglu Macky Sall kese. elle la là pour le peuple question peuple ñoom ñoo ko posé pour bëgg a xam est-ce que Macky am na possibilité bokk waaw wala déet léegi nag su fekkee tontu na ci loolu ñu xool ni Macky kat gis ni kat conseil constitutionnel d'accordul ak moom bu boobaa Macky na dem wuti yeneen voie de recours avant les élections Macky mel ni ñi nga xam ne ñoo nekk ci touche bëgg a bokk te amuñu possibilité moom aussi fekkee am na voie de recours am na question yu posé am na aussi ah, pour dem pour dem interroger wala mu laaj na ko def mais ñu bàyyi rek Macky Sall naan ko nii wii nii noo ba kañ mais Kare il faut qu'on s'écoute c'est-à-dire conseil constitutionnel tey mënul def éruption dans ce débat là ce dialogue là. dem toog pale naan ma ngay tontu. <laughs> ça aussi c'est pas possible. objectivement c'est c'est à Macky d'autoriser sax. non dama ne. si Macky le veut su ko Macky bëggee bu leen invité ok amoon na lu gën a yomb mais non vous dites vous il est tellement à l'aise autant que moom il est à l'aise mm. Mm. mais pourquoi pas inviter les sages ñëw toog. waa kon inviter les sages tamit lan lañ fay def lan lañ fay def mais dañuy tontu ci question ci question bi mu jeex. mais dañoo war a yegg foofu waaw léegi nag vraiment mën ngeen kon se comprend pas donc. non yow xam nga se comprend non non su fekkee ne ñun nee nañ décision finale bi conseil constitutionnel. moo ko moom yow tu donnes du crédit loolu la ñu wax. non mais c'est comme si tu donnes du crédit loolu la ñu wax. léegi Macky Sall dëgg ci bal bi Sénégal waxuñu loolu de ce sont les gens de Benno qui disent partout que ne le dernier mot revient au conseil constitutionnel moom mooy wax ndax day dem wala du dem ma ne loolu tamit kii dem loolu tamit dëgg la il faut ñu wax tamit loolu dëgg la même bu fekkee waaw ah, mais il faut ñu nangu ne non c'est-à-dire ah oui conseil constitutionnel aujourd'hui mais loolu on habilité à dire que bien sûr qu'on n'en disconvient pas waaw déglul conseil constitutionnel moom mooy wax mais est-ce que conseil constitutionnel day toog nga indil ko ñaar ñi indiloo ko kii mu valider ko c'est parce que da bëgg man loolu laay wax Kader. c'est-à-dire que il faut que waaw kay il faut que nga xaar ba dem ca coggal guy ga ca conseil pour que mu wax ne nday amul dem ki jël décision pour dem ne moom dafa wuy dem troisième candidature est-ce que war na pour une troisième fois nga dem ci loo xamante ne constitution bi li mu ci wax leer na. ci koo xamante ne am nga c'est la même par rapport ak li may wax. fi mu toll nii question bi ne concerne ne concerne pas Bougane ne concerne pas xalifa Sall wala sax Fatou Abdou u keneen question bi. kan la concerne am ku mu concerne. Ah. le président de la république Macky Sall. pas le conseil pour l'instant. non attends Macky Sall Macky Sall li ko li ko ci dugal moom moy dañu demoon ci ay référendum def ay propositions sénégalais yi voté à l'unanimité ni d'accord nañ. ni waaw la ñu wax ni. d'accord amoo droit ci lii. Macky Sall jóg taxaw ni amu ci droit léegi nag pour que ñu édifier ñu ñun ak Macky avant que muy déposer sa candidature mais conseil constitutionnel war na mën a génn léegi nag question bi ñu ngi koy. wax yow Karim bindal conseil constitutionnel. ah mais <laughs> non non y' a pas de problème incha allah. non il faut conseil constitutionnel. Ah. sur la possibilité d'une troisième ou. candidature parce que loolu je ne crois pas que le conseil. puisse faire éruption dans la salle des de, des hmm. dans le dialogue pour dire que Macky a le droit Macky moom moo évité. nga Macky Macky. mais mais daal boo xoolee. Macky moo invité appareil gouvernement bi yëpp ñu leen ñu ngeen toog. léegi nag la ca mooy. na invité conseil conseil la ñu toog moom bu tontuwul ñee tontu jeex na su fekkee ni seeni ni carrément question bii Macky mënta génnee ci gémminam mais na bàyyi libre choix. d'accord conseil conseil ñu wax waaw la wala déet ñu posé question boobu. biir palais. que c'est quand même euh, la majorité ak euh, ay leaders politiques yu nga xam ne euh, quoi qu'on puisse dire am na nu dayo ah léegi laaj bi ma bëgg a laaj mooy est-ce que aujourd'hui lépp lu ñu fa tënk à travers seeni ay ñoo xam ne ñu def ay commission wala liggéey yu ñu fa a def est-ce que Euh, concerne na ñi nga xam ne peut-être lankoon nañu ndaari ne duñu dem ci boobu la dialogue parce que aujourd'hui le président est en face euh, ak nit yi nga xam ne